tóor asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi ñuy suivre ci seen site internet comme ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey mercredi 12 février 2020 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay ay comme ni ngeen ko amee chaque jour moo ko seex ak Bokar Ndour Kor Mama maa ngi lay ziar borom Rouge Bordeaux bi. maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokk Sénégal yëpp rawatina mbokk internetu Lutte TV Lamine ni nga ko waxee rek yaakaar naa ne tey mooy le 12. mercredi mercredi 12 février 2020 ñu ñëw ak yéen si yéen kaay comme ni ngeen ko amee chaque jour ñu ci ànd ak waa sàmm sa téléphone nañ dem seetaani vidéo bi te ñëwaat dinañ leen andil journal La Tribune journalu record ak journalu sunu lamb comme bi tey riis na lool sàmm sa téléphone application bi gën a wóor application bi gën a fiable pour protéger sa ay données sa ay contacts sa ay photos vidéo heure boo tegee sa téléphone di ko chargé nit bu ko déverrouiller automatiquement daf koy daldi photo yónnee photo bi ci sa mail bu ñu sàccee sa téléphone wala sa téléphone réer abbal téléphone nga yónnee message ci sa numéro de téléphone ñu daal lay yónnee localisation am koy def contrôle à distance. France daal di lay déclencher sirène bi muy loo xamante ne nii nag boo ci bëggee am ay yeneen i leeral da ñuy woo ci 77 149 04 08 le prix est fixé à 1000 francs CFA seulement. noonu la demee leer na nañu ni Banjul ak ay sondalam ñu commencé ko ak journalu record journalu record tey ah, Sa Thiès la xëy fësal waxtaan na ak moom lu yaatoo yaato yaato yaatoo Sa Thiès nag mu mel ni instant bi nee na promoteurs yi ñoo ngi démarché combat am ak Garga

waqo kase boo xamante ni moo gën a bari fay ko ci Garga Mbossé nee boobu lay jël. waaw nee na boobu noonu lay jëlal mu mel ni rek à recherche du profit comme ni ñu koy waxee des rek maanaam mbëri si loolu la nekk ku si nekk des fois xool sa arrangement même promoteur yi tamit ku si nekk da xool sa arrangement xool combat yoo xamante boo ko tëggee di si mën génne nga tëgg leen waaye moom saa si daal jàpp ne day nekk Sa Thiès bi mu nekkoon ci vitesse ci vitesse ak gaawaay. ci vitesse ci gaawaay ak vivacité loolu la Sa Thiès wax Lamine daa jàpp na ne maanaam bu dee 130 kilos waaye 130 kilos nag sa poids dina waaye Sa moom am na yaakaar ne bu tollee noonu tamit gaawaayam maanaam daal performance am dara du si wàññeeku. loolu la wax wax na tamit ci Papa Sow wax na tamit ci Siteu dem na nag ba wax ci beneen wax boo xamante ni mu ngi ci xët bu njëkk bi. te mooy combat Siteu ak ki nga xamante ne mooy Papa bi war a am le 5 avril laaj nañ ko ci xalaatam mu wax nag la nga xamante ne noonu la gisee combat bi ak défaite bi nga xamante ne Papa su fekkee am na ko ci lan moo ko ci mën a fekk Siteu tamit bu amee defet lan moo ko ci mën a fekk. waaw Papa Sow moom jàpp na ne bu bu bu bu amee defet wala wala wala bu jëlee defet ci combat boobu noonu maanaam day obligé jël booy loolu noonu maanaam mooy ay waxi Sa jàpp na daal Papa Sow mooy ki nga xamante ni. moom moo ëpp li muy li muy li muy li muy li muy moo ëpp li muy perdre si si si si bu amee défaite ci combat bi mu war a bëri digganteem ak Siteu le 5 avril. le 5 avril la war a am école de lutte Double moom nee jàpp na ne kenn mënu ko faa dàq ndax moom mooy ki créé écurie boobu noonu. waaw ñu jàpp na ne kenn mënu ko faa dàkk ba si duubale si boppam sax jàpp na ne même duubale mënu ko génnee si écrit ba parce que nee na écrit ba moom moo ko créé moo ko sànc moo moom moom moo ko moo ko moo ko procuré daal kon yaakaar naa ne jàpp na ne moom écrit ba écrit la la mel. ay sponsor nag yu mag a mag a mag a mag lay laaj lan moo tax boobu ba léegi mënuñu koo décroché comme Puma Adidas ak Nike. waaw ay adversaires yu mag a mag waaye Lamine ni ñu koy waxee tout le temps rek maanaam adversaire ay sponsor dama jum sponsor yooyu noonu Lamine pour ñu ñëw tey si làmb ji ni ñu ko waxee rek maanaam foo ñu taaral làmb ji jaay làmb ji ba làmb ji mën a jéggi Afrique rawatina waxatuma la nag Sénégal parce que football tey Lamine dañ ko taaral di ko jaay di ko jaay ba tey maanaam sponsor boo gis rek bëgg na sponsoriser coupe du monde de football wala bëgg na sponsor bëgg na sponsoriser kan kon yaakaar naa ne làmb ji sponsor yi Lamine war nañ ko gën a mën a dooleel ngir mu jëm kanam. noonu la demee ñu ñëw ci journal sunu làmb journal sunu làmb Mbaye la xëy fësal muy dànkaafu nag nee na nag instant bi tiit na lool maanaam waaye ragal na lool ci làmb ji ni muy doxee instant bi waaw ku dul Mbaye Guèye sax Lamine tiit na képp kuy dund làmb wala képp kuy bokk ci Sénégal rek Lamine tiit na ba tax na tiital nañu na tiit na ci làmb ji waaye nag yeneen loo xamante ne wax na ko nee na vrai amateur yi sax instant bi dañuy ragala déplacé wu di dem seetaan li nga xamante ne mooy làmb yi sponsor yi daw nañ xaalis tamit dafa mel ni amatul ci làmb waaw Lamine parce que amateur Lamine da daan toog këram añ ba suur naan ataayam Lamine sol yéreem bu rafet dem seetaani làmb Lamine maanaam mu am lu bëri lu yëg-yëg ba mu seen am wala lu mu si daan dund Lamine waaye amateur bu demee ba ñemeetul seetaani làmb ndax di am lu muy tiit wala di tiit si sécurité am yaakaar na ne làmb mu ngi dellu ginnaaw waaye tamit xaalis bi ni ñu ko daan gisee si làmb Lamine cachet yu mag yi ñu di ko fayeeku léegi nga gis mbër yoo xamante ne dañuy année balance ndax lan xaalis bu leen promoteur fay sax amuñu ko kon yaakaar na ne Lamine làmb ji am na am na am na crise benn am na crise benn côté moo waral moo tax mu jàpp ne sax ay VIP yu bari dinañ def année blanche arène nationale ba tamit dafa mel ni wax na ci xalaatam dafa mel ni sax nañ ko tabaxee moom àndu waaw wax na ci xalaatam VIP yi moom la dinañ année blanche at la ñuy wax parce que xam naa ne daaw am na ñu bëri ñu ci année blanche ren ren moo si rawati arène nationale bi nag jàpp na ne maanaam liggéeyu chinois lañ ko liggéeyee loolu waxi Père Mbaye Guèye la. loolu waxi Père la ci journal sunu lamb bu ñu des ci journal moom nag mu nga xëy. di wax Ama Balde la ko arrangé ak la ko arrangé wul ci combat ak Modou Lo waaye journal lu mu koy fësal moom nee na xeex moom digalu ko Ama Baldé mu koy def ak Modou Lo ndax jàpp na ne Ama Baldé moom maanaam képp ku muy bëreel da lay attaqué te jàpp boo xamante ni boo koy attaqué maanaam da si avantage da si da da si da si am da lu si gagné si yow ba tax na moom Père Zallo si xale si si na ne Ama Baldé mun a attaqué Modou jàppul jàppul nag ne nag Modou Lo moo mën a Ama Baldé parce que jàpp na ne Ama Baldé Modou gënu ko technique Modou Lo gënu dàq ko bëri waaye xëy na dafa jàpp ne daal Modou Lo moo ko ëpp expérience loolu waxi Zallo la Lamine. nee na tamit Ama Baldé garde ba baaxul. waaw nee na tamit Ama Baldé maanaam garde bi baaxul mu ngi koy conseillé maanaam mu defaraat gardam parce ne Modou Lo mbër boo xamante a li mu maanaam mooy mu mu mu kooraakoor ak moom mais bu mu nekk di moom. loolu waxu Zallo la ci journal sunu làmb leneen loo xamante ne wax na ko mooy combat Boy Niang ak Balla Gaye numéro 2 moom moom jàpp na ne instant bi heure bi sonal na. waaw jàpp na ne combat boobu noonu dafa jot Zallo si si si xam-xamam ci yàggaam si làmb jàpp na ne maanaam heure bi moom sonné na pour pour pour Balla Gaye da ak Boy Niang laalante làmb mën fee dekkiwaat loolu waxi Zallo la. loolu waxu Zallo la ci journalu sunu làmb fa mu jeexale nag. mooy lan moo tax mu quitté Fass loolu détails yi mu ngi ci biir journal waaw loolu wax na si Lamine maanaam li tax mu quitté Fass wax na si li nit ñi doon naan rivalité mag euh, Moustapha Gueye jàpp na rivalité amul woon parce que nee moom boobu Moustapha Gueye ko dese woon si carrière bëreetul waaye jàpp na ne daal ay coow yu sew ay nit yuy wax tamit ay ay nit ñoo xamante ni maanaam ñoo ko yàqal daal ñoom bokk naa si li tax mu quitté Fass. waaw ministre bi moom dafa mel ni mu ngi xëy dànkaafu ak métti ba nga xamante ne am na ko keroog ci li xewoon arène nationale ba dootul nangu mukk loolu di continuer di am ci làmb ji te nee na loolu su continuer di am ay daan yu rëy dina ci fekk waa làmb ji waaw nee loolu bu continuer di am ay daan yu met daan dina fekk waa làmb ji waaye nekk na loo xamante ne moom tamit moom koy naqarlu te nee na bokk na tamit si loo xamante ne maanaam day yàq làmb ji maanaam day tax làmb ji gën a di gën a sooxe di gën a suux loolu waxi Matar Ba ñaqam jariñu moom mu ngi jégalu bu baax a baax ci li nga xamante ne amoon na keroog waaw li nga xamante ne mu ngi am na keroog moom ginnaaw bi mu na moom maanaam ba léegi jàpp na ne tooñul waaye jàpp na daal mu ngi baalu ak CNG di baalul tamit waa écurie ndax jàpp na ne moom écurie bi vraiment yéeguñu tiiñuñu ma tax na daal moom ñaq jariñu mu ngi ñaanaat CNG ñu jégal ko ñu jégal ko ci sanction bi nga xamante ne moom la ñuy gàll ci ndoddam Alioune Sèye moom bañ ko gàll ci ndoddam moom nee na lu ko yoon may rek wala lu ko yoon teg rek mu jël waaw nee na ko yoon teg rek mu jël waaye jàpp na tamit maanaam lu ko luwaa may dina ko def parce que moom tamit jàpp na ne xëy na dañ ko tooñ ngi xaar notification wu CNG buy ne dañ ko ajak affaire yu demee noonu loolu Alioune Seye loolu Alioune Seye wax si biir journal bi waaye dafa mel ni tamit maanaam euh, mbëri bëri woon yëpp kenn jote ko si kenn jot ko si reliquat maanaam vingt yi nga xamante ne ñi joto a bëri yëpp daal foog naa ne kenn jote ko si reliquat ba tey waaw loolu ca na ko wax. Fils de Zale Lo de amaan na combat digganteem ak Aboy journal bi wan nañu ko fii dañu wax ne combat ba taxaw na. waaw combat ba taxaw na Fils de Zale Lo ginnaaw bi nga xamante ne dafa bëre woon moom ak caatu ngewel bu yoof di déposé woon recours di xaar recours bi ba xam ndax dañ ko jox ndamam dañ ko dañ koy dañuy maintenir victoire bi amaat na combat moom Fils de Zale Lo. loolu noonu am na leer na kan moo tëgg combat bi dafa mel ne Ama Events moo ko tëgg ba léeg rek ki tëggoon combat bi passé ak a xew daal. dinañ ko lire après ñu des ci journalu La Tribune bi nga xamante ne tey Gris Bordeaux la xëy fësal ak Tapha jàpp na nag ñoom instant bi dañu obligé jël xale yi wala moom loolu rek instant bi mu wax ci seen côté. dañu obligé jël xale yi loolu la journal bi andi si xalima xalima Pape Moussa Traoré journal La Tribune di def jàngat wala di samp laat rek. Gris Bordeaux ak Tapha Tine ndax duñu obligé jël booy yi parce que tamit sam daan champion moo moo lay tax a doon champion champion yi faut ñu may booy yi chance booy yi mën a wane seen bopp comme ñoom VIP pour ñu bëri seen biir day xaw a jafe kase yi ñuy laaj promoteur yi duñ ko mën a tëgg te yaakaar naa ne am na booy yoo xamante ni boo leen fay yenn kase yi dinañ bëri ngir seen intérêt ba tax na journal bi di sampalaat ba xam ndax duñ jël booy yi may leen chance la wala ñu boole leen sax ñoom ñaar ci seen ñoom ñaar bëreeguñ war nañ leen mën a boole waaw ñoom ñaar war nañ leen mën a boole Lamine ñoom ñaar yaakaar naa ne combat dàqu ko tey nga tëgg Gris Bordeaux ak ak Tapha Tine Lamine loolu moom combat bu neex a neex a neex lay doon derby Médina lay doon. war naa mën a nekk ak lu mën a xew promoteur yi nañu wax ci combat boobu noonu ndax combat la jaadu na ñu ngi nuyu ñuy suivre le tv point com yëpp fu ay mën a nekk si àdduna bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di gis commentaire yi nag ñu ngi topp yëpp di nuyu groupe le tv di nuyu Omzo bu Garga tuuti yaay Sarr Serigne Diour ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu Xaarim Bamba caatu gi. waaye duma ma fàtte tamit ki nga xamante ne mooy Abdou bu xarañ loo Mame Balla Gaye du fàtte coach su jamono ñu ngi koy nuyu bu baax Boucar Seck ñu ngi koy nuyu di nuyu Cheikh Thiaw ñu ngi koy nuyu di nuyu Bé Gaye Mezzo Z Mamadou Ndiaye Yoff ñu ngi koy nuyu Seydina Aline borom jaasi ji di nuyu Tuuti Yaay Sarr Diop Moustapha Cheikh Bass borom Kër Massar Mamadou Gueye taalibi Serigne Mbaye sa Abdou Birane Mbengue Ismaïla Faye Lapso Liggéey ñu ngi koy nuyu di nuyu suñu papa ba nekk ca gàmmi nag Idi père Idi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak Ibou Sagne. waaw Lamine ñoo leen di nuyu di leen ziar di nuyu laa bu def borom Sandaga di nuyu Leyti Seno Mbelo Ngit Mame Waly lay ziar sama frère Madou Seno Mbelo Ngit ñoo koy nuyu El Hadj Touré ñoo ngi koy ziar Lamine bu baax a baax a baax di nuyu waa Sandaga yëpp rek ñoom Lam Star ñoom Cheikh Ndaw Baye Gueye ñoo leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu Bilal Bass ak ki nga xamante moo di ñaan capital borom marché Dior ngi koy bëgg si sangaan isaalu fu sama tooma Bokar koy bëgg ak doom yëpp ñoom Modou Mbaye ñoo leen di bëgg Lamine. Yoro Kanté ñu ngi koy nuyu di nuyu ki nga xamante mooy Pape Baba Guèye Modou ñu ngi koy nuyu Ibrahima Seck Guèye Teranga ngeen ni tey saf nañ fi sàpp dàmbe nga ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu ki nga xamante ne mooy Mor Jaxate duma fàtte ki nga xamante ne mooy Amine Dem Arouna Camara borom Kaolack Abdoul Mbaye Mor Jaxate moo ñëw foofu dëgg rek ñu ngi lay nuyu bu baax waaw li bi les ennemis de la lutte bëgg nañ la bu baax a baax ndongo ji ñu ngi lay di nuyu Ali Keita di nuyu Umar Ndongo ñu ngi lay nuyu di nuyu Baye Cheikh du ma fàtte tamit Seydi Traoré comme zo bu gar ga ñoom ñëpp ñu ngi def commentaire yi ñu ngi topp commentaire yi parfois nag day bari ba duñ mën a lire ñëpp waaye yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu Abdou Darame borom États-Unis ak ki xamante ne mooy sa doomu ndey Babacar Sarr borom Birkelane FM. borom ñoo koy nuyu di nuyu di DJ Mo Lamine DJ Babacar Sarr gaa yëpp ñoo ngi leen di bëgg ak seen i auditeurs Lamine. Mm. di nuyu Daouda Ngom ba sa Brésil ak Aliou di nuyu. Ibrahima Wade doom day Ramdan Fakman bi mannequin bi ak ki nga xamante ne moo di Matar Kandé Lamine depuis Bilbao.